naa ni amul problème pour wara gisante ak sëñ muntaha kenn la dégg ko xamni ni mu ngi def gam di wax wax ju ñaaw nga xamni mom lepp lu tak ci rew mi bakkan bu fi rot ci rew mi japp naa ni yowmal qiyam mom moy responsable. kan ci moy ku ñu wax Moustapha jaxate hmm. parce que dégg na muy wax naan ñi demone Touba ay wéyu lañu man de bu ma dee wuyu tamit man du ma wuyu buy tux bon man du ma tux bon. Ah. non déglu rek ma wax man maay wax li may wax assumé naa man duma ma tux bon du ma naan sàngara não não não jabaru não non non non non non Imaam. Ah, waaw da ngay déglu. Euh, kii Moustapha. non euh, déglu euh, waxuma ni não def de. dama man benn wuñ ma ni mais bu dugg ci bu ñu bu ñu yow déjà kilifa diine nga. bul wàcc foofu même bu ma dee kilifa diine. non non bul wàcc foofu. waaw d' accord waxuma ni da koy def. da ngay déglu non mais mais bu yow waroo sax wax yooyu warul sax génn ci yow. ça dépend rek. voilà kilifa nga te kilifa diine xolam dafa war a yaatu. waaw déglu rek. waaw ba pare may ma da nga invité. Mhm. da nga may bàyyi ma wax li may wax waaw mais dama la ñaan tamit bu ñu wàcc ci gàmm non déglu ma wàccuma ci gàmm gàmm bi ma taxaw bu yonent bi ñëwoon ci lay taxaw mooy dëgg dama la wax ni la man du ma du ma tox boon du ma man jullit laa yaa ngi dégg boo sëñ du recevoir wëyu du recevoir kuy fen dafa am loo xam dafa war a jeex ci réew mi réew mi mënoo fee nekk am bu 30 personnes tay faatu ci réew mi nga continuer diko def dama wax ni ku melni musa Moussa Diakhaté dafa wara am courage mu am ngor te mu respecter nit ñi dama ragal ni nak mom depuis mu ngagne yonent bi ba tey àndatul ak parce que tok na fi ñun kiñ gëna bëgg ñun ñun Sénégal kiñ gëna gëm nga xam ni ñiko gëmul sax normal warmal nañ ko mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu taxaw ngagne ko lolu am tolérance moo tax ñu bàyyi ko moom muy dund. donc yow da ngay. bu fekkee ne am na kenn koo xam ne nii jàpp naa ne waroon nañ koo rey xam nga moom nee na Sonko terroriste la Ousmane Sonko dañ ko war a rey ma gëm ni bu fekkee ni réew mi am na kenn ku fi nekk terroriste kenn rek la ci réew mi du ñaar mooy Moussa Diakhaté parce que moom moo porté woon dossier wu Ousmane Sonko takk rajo yi gëmloo nit ñi ni Ousmane Sonko dafa war a dee ci kaso bi. waaye wolof nee na borom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm gis nga kaso boobu mu yéene Ousmane Sonko moom bu amul sens moo ci dugg man nag sama làmmiñ demul sama poos te moom xam na ni ëpp ma man boo waxee benn dinaa wax ñaar parce que bu dee mbokk ëpp ma ko ci réew mii bu dee responsabilité maa ko ko ëpp. ci donc yow leeral nga ne. ñii ñii jéem a dafa baax tuuti ci Moustapha Diakhaté. parce que non dama ci taxaw parce que dafa def émission lëmm. Mhm. di def ay attaques personnelles yaa ngi dégg. heureusement nak limay sante yalla musa jaxate amul ben responsabilité ci ci parti APR. bokkatu fa sax wa non seulement du ministre du ambassadeur du porte-parole du gouvernement kon bu nee Pastef parti parti parti parti terroriste le lim wax mom la engagé way rew bu fekkee ne am kenn kuñ fi tuddé terroriste man musa jaxate la ko tuddé parce que mo fi ngagne yonent bi yonent bi Cheikh Amadou Bamba gem mo taxaw fi ngagne donc yow Seydi Hadji gem réew mi tey bu dee ni mu murit gi muy woote dëgg la ku mel ni Serigne Mountakha yàlla na ko yàlla na ko fi yàlla bàyyi woote jàmm nit ñi di wut solution nga taxaw défier Serigne Mountakha loolu bu dee ni murit gi ngay woote dëgg la ci yow doo ci nekk kon na arrêté parce que ñun ñi muy waxal lépp lu muy jaay rek ñoo ko ko ëpp waaye ñun réew mi dafa am lu mu ñu jaral ñun waxuñu pour suñ poche waxuñu pour lu neex Macky Sall waxuñu pour lu neex Ousmane Sonko dañuy wax parce que réew mi lañ bëgg a sauver loolu bref parenthèse la woon rek bu ma doon def di wax ni il faut mu respecter nit ñi il faut mu respecter nit ñi parce que réew mi ñi fi nekk dañoo mérité